nu ngi jot li ci ndigalul sëñ Mountakha euh, xalifa murid yi di borom dëkk bi itam sunu cant ak sunu ngërëm ci mboolem ñi nga xam ne autorité région bi ak euh, seen kilifa ya nga xam ne ñoo ñoo ngi ca kaw ndax wax dëgg yàlla bi sëñ bi jàppee màggal gi ba léegi ni mu ko waxee daanaka wenn weer li muy xat-xat xat ndax coow yi fi amoon ñetti daje yi ñu war a def yëpp mbaa ñaar yëpp def nañ ko ci ay bis yu gàtt waxtaane ji liñ soxla ci màggal gi mu diis lool ndax ku ne xam ne ne daaw màggaluñu ndax euh, mbas mi fi amoon euh, dama leen wax sax ne leen ñaari màggal la ñuy màggal ndax lu ñu waroon def daaw te defuñu ko duñ ko romb faaw ñu def ko booleeg li war a def ren lool na xam ngeen diis na te jamono ji gàttoon na te xat waaye yàlla ak pas-pasam ak yéeneem ak pas-pasu chef de service ak seeni kilifa taxaw nañ tem ba mi ngi mel ni daa màggal nañ ndax yiñ soxla yëpp wax dëgg yàlla lu ci ne taxaw nañ ci te damay wax ni li ma dëkk ak ñoom taxul ñooy samay dëkkandoon ak wax dëgg yàlla ñoom laa xam ci ñoom laa jote jote wu ma feneen waaye dafa mel ni liggéey bi li ci ëpp ñoom ñoo koy def ci région bi lay amee ndakaat nañ leen dimbali xëy na benn la rek waaye ñun liñ gis rek lan mën a seere ak liñ xam liñ xamul xamuñ ko kon liñ gis moom seen taxawaay seen pas-pas euh, wax dëgg yàlla feeñ na ci tàmbali bu bisub tey bi ndax boobaag léegi bañ tàmbalee bañ waxee suñu soxlaak léegi yàggut te dox nañ ci jéego yoo xam ne wax na ko léegi te euh, am na loo xam ne waxuñ ko waaye yi ci ëpp solo nga xam ne mënta ñàkk wax na ko ndax sëñ bi daf daan wax ni màggal moom ñaari ñaari ñaari man-man la li nga xam ne noo ko mënal suñu bopp yàlla def nu mënal ko suñu bopp loolu moom yoonu kenn néewu ci noo koy defal suñu bopp duñ ci tàgg kenn duñ ci ñaan ndimbal lu ndimbalul yàlla waaye am na loo bi ne nag mën luñ ko suñu bopp état bi moo nu ko mënal di suñu beneen loxo te état bi mooy yéen loolu wax na ko fi léegi lu mel ni wàllu sécurité gi dégg ngeen li mu ci wax sëñ bi mu agsee rek lu man ñaar fukki gendarme ña ngi fi boobu ba tey di ko taxaw gis ngeen ni mu xate daayira yi bis bu ne lu ne lañ ci daj fi la ñuy yenn fi la ñuy fanaan